ndooma tànk pour liggéeyal askan bi ñoo la fal mais fàttewuñu taxawuñu si hôpitaux yi digooñu li ñu gisul man nga bàyyi sim réew ak naa ma taata jàmm ju bari si yaw wallaahi mbooloo ma doole nañu takku sànni carte yi xam ni seex mooy waaja dugal nga loxo si mbay mi jàppale jeunes yi bañ am mbégte la joie suñ mère ñun ndooy Mali maram ndooy lépp ndooy Mali maram ndooy seen ndooy bu sañoon Thiès ma dàkk Paris da nga takku pour liggéeyal sur les jeunes yi ndax ëllëg ñoo yori réew mi gàcce ngalaama seex jàmbaar moo des sa waar wa jël seex kon doo jël seex doomi Thiès kaay ñëw na kontaan naa sama xol bi sedd na trop maa ngi leen di sargal di leen sargal di ñëw nag si monsieur le ak ñi mu àndal maa ngi leen di nuyu di leen wax ñu dal ak jaam wax dëgg yàlla moom it góor la garmi la moom it bañ xamante ba léegi jàppante wax dëgg yàlla lu mu digee def na ko lépp lu mu mës a digee rek def na ko li ma doon wax keroog ànd ak ay jeunes dafa métti ànd ak ay jeunes neexul waaye monsieur ku baax la ku gore la ku dëggu la lima ma gën a neex nag si nit mooy ku dëggu bu la wooyee tey la fat lii bu soobee yalla, xamaleen na def ku baax la ku dëggu la ñu ngi koy ñaanal yàlla lii mu sumb yal na ko ci yàlla yonent bi ak sëriñ Babacar si jàppale lépp lu mu yootu yal na te yàlla da koy def bëgg na xale yi bëgg na mag ñi ak yu baax yi muy def nag yu baax rek lay def ci dëkk bi yoo xam ne nit ñi sax xamuñ ko lu baax lu baax moom lay def rek lay def di dimbale nit di jàppale loo xam ne nit ñi sax xamuñu ko yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla taxawu yal na ko yàlla li muy wottu yal na ko ko yàlla jox ci barkay Seydina Mohamed maa ngi ko koy ñaanal te bu soobee yàlla day am bu soobee yàlla dina am di sant ñëpp nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan naa ci yéen lool kontaan naa trop waru leen ma de waru leen ma benn yoon waru leen ma ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen te nag ñu ngi lay wax ne fii moom yaako moom fii yaako ko moom fii yaa moom fii yaa ko moom waaw fii moom macha allah fii moom fii trop ñu ngi kon ñu ngi sant it Adja Aram Dioum Adja Aram Dioum maa ngi koy sant ndax wax dëgg yàlla boobu ba léegi saa bu déggee dara lu baax daf may woo moo tax tey jii bi ma koy wasa tardivement laa ko woo. ci saa si mu dal di ñëw dal di def waree fa moom maa ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam rafet na trop taxawaayam rafet na may wax nag nañ gën a jàpp nañ gën a jàpp carte d'identité yi maa ngi la ko ci wax keroog ci carte électeur yi carte yi maa ngi ciy wax keroog ñu dal si jublu def ci campagne campagne pour ñi nga xam ne amaguñoo extra yooyu keroog maa ngi ko koy wax bu soobee yàlla dinañ ci jublu ñu ngi lay ñaanal di la ñaanal li ngay wut yan la ko yàlla jox maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di ñaanal ñëpp dama kontaan sama xol bi dafa sedd lool dafa sedd lool macha allah. dama waxoon keroog rek laay waxaat tey gis nga Cheikh Ndoye mii dama koo bëgg te yàlla tax te Cheikh Ndoye bu ñëw woon kaw sara sax dama koy wëri ba ànd ak moom ndax damaa gis li muy def ci réseaux sociaux di ko seetaan di gis li muy def social ñoo ànd ak moom Cheikh Ndoye ànd ñoo yow nga xaalis de ànd ñoo yow xaalis danoo ànd ak ndax bëgg ak ngëm-ngëm te da am maire bi te di nga ko jël ndax ñun moo ni bu ëllëg ñëwee duñu sànni ñun duñu duñu duñu saar yooyu ñun ay niti góor lanu ñun bëgguñu xaalis xam nga luñ bëgg gëm nga am maire bi te bis boo amee maire ñun ñu am ñu noppalu wala suñu doom noppalu ndax xale yi fi toogoon tey di def clip bii am nan BFM ñii am nanu sama doom ji taxaw nii am na bac bu daan politique ñii ñëpp xale yi am nan ay bac ay BFM ñun ñoo leen bëggu leen jàppale ndax ñun suñu wàllu wéy na ñun mu ngay liggéey sunu njaboot gi tax ñuy liggéey mais xale yi bu ñu amee ñun ñu noppalu kon xale yi lan bëgg ñu am poste te bis boo nekkee président monsieur le maire dana sax na xale yi dana am poste ndax li tax ñu bëgg la mooy danga dangaa def première rencontre naaju tàng jër nga ñëw kaw Sarakaar quartier populaire ànd ak ñun bu la neexoon ne naaju lu ma ci jóg te jongaa ñëw di def lu rëy ñëw ñëw ba ci naaju dugg seen kër fekk sama yaay sama yaay di mooñ bi mu ñëwee amu tek ci ay jour nga yenu saaku dugub ñu indi ko sama yaay muy lu xam te sama yaay kumu ñaanal ñaanal demagum juróom-ñaar fukki at kon wax ji dugul na ci mom kon cheikh ma gëna tila bëgg ci bobu de ki nga def te bu dee ñun nak lima la waxon kéro gis nga fi ya koy mom tay ba ëlëk ñun ku ne ñëw na fi xool ñu xaaliss xool ñu dara xam nga lu ñu xool seex ndooy ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal président monsieur le maire monsieur le maire monsieur le maire jërëjëf na naa gërëm Assalamu alaykum. Assalamu alaykum mbolo mi Ma leen nuy yeen ñep ku nekk sa tour ak sa sante. mi mak xalé ak ndaw Xama dara neexul nga wote ñu wuy si leen Ta mën naa ne ñii ay boy kasse lañu mais man nak limay wax bari wul ndax li ma wax yeb maire wax nañ ko danaka mais ñun jeune yi dañuy waxal lo xamanteni pour suñ bop la ndax koñ bi suma bi dafa bari ndax ñi ñi ngi si jagartaay ñi ñi ngi si maçon yi ta xalé momu liggey metti yoy nono nit ñi dañoo war am ay emploi yo xamanteni dañuy gis seen bop di liggey ndax fi dafa bari ay xalé yo xamanteni seen yaay ak seen papa dañ leena yaakar ta Cheikh dama dégg ben wax nga ni maire bi kuñ ci far rek le jour au lendemain Dakar ngay dem di lek say ginar fatéñu ta yow mi dañ la dañ la yaakar wul la goo xamante ni ñi fi ñew ñep bari nañ mais musuñu am si yaakar yaakaar musuñoo am musuñoo musuñoo am ci ñom yaakar suñu sayon nak yaakar gi ñu am ci yow bu mu tas ñun nak dinañ la jappalé ba luñu man mais yalla moy joxe ndam ñi ngi ñaan yalla jox la si barke Seydina Muhammad wasalaam waaw alaykum wa Kawsara ñu ngi leen di nuyu yeen ku ci nekk ci turam ak santam man nag damay jël nuyoo bi teg ko ci sama loxo yaay muy soxna Ayda Gaye mu mu jël nuyoo bi teg ko ci loxo waa kaw sare yëpp kàddu yi nag du bari ndax guddi na ba pare dañ leen di rassurer rek xam ni ki ngeen àndal ku jara àndal ngeen àndal ndax fi mu toll nii dafa dafa jot ñu ànd ak koo xam ni bu jëlee suñu mairie bi dina jege population bi ndax ñun loolu lañu manqué ñu leen di xamal ni nag ànd ngeen ak gor ñun bu ñu suñu temps bi yëpp di ànd ak Cheikh ndoy dafa gore ànd ngeen ak koo xam ni dafay def social te kenn du ko yëg buy dem ci kër yi di dimbali nit ñi guddi lay jóg te du ànd ak kenn ànd ngeen ak gor ànd ngeen ak ku baax ànd ngeen ak ku jara àndal muy Cheikh ndoy mi ma leen di xamal ne nag liñ koy jàppalee mooy bu bis ba jotee ñun ñëpp ñu àndandoo dem votel ko ànd ak moom gunge ko ba ci biir maire bi mu toog ci siège am boobaa di ngeen xam ni ki ngeen jox maire bi ku ko jara jox la waaw ndax Cheikh Ndoye xam nga kii raam di la bokk ne la su ma amee oto dinaa la yóbbaale war nga koo gëm ndax Cheikh Ndoye mii dafa commencé loolu te dara xewagul jege population bi di leen jàppale di dugg ci nit ñi guddi di leen jox lu nekk te kenn du ko yëg du ko foto du def dara bëri na fi ñoo xam ni benn mbuusu gerte sax bu ñu la ko joxee dinañ ko foto publier ko mais Cheikh Ndoye mii bokkul ci loolu li muy def te kenn du ko yëg moo ëpp fop li muy def nit ñi di ko yëg ma leen di xamal ni nag gor la ku jara àndal la ñun ñëpp nañ bàyyi lépp ànd ak moom te bu boobaa incha allah dinañ xam ne àndal nañoo ku jara àndal kon ñun ñëpp nañ leen ko jàppale ci loolu loolu léegi lañ ci doon sànni ñu ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waa Kawsara maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen masawwaat bu baax di leen masawwaat bu baax toogaay bi parce que toogaay bi yàgg na. Euh, Kawsara moom dama naan li ma soxla fi mu nekk nii ci Kawsara lenn kese la na ma yàlla dimbali ku may ñaan ci Kawsara na ma ñaanal li ma waa Kawsara Fall ji na ma yàlla dimbali ba bu ma ci gis sama bopp mais na ma yàlla dimbali ba bu ma fàtte waa Kawsara ndax euh, nit damay faral di wax ni soo gënul soo gënul nit ñi ëppoo leen daraja ëppoo leen dara nit ñoo ñu bàyyi seen lépp jiital la boo dee nit tey gor war ngaa tiit man tey ci étape boobu laa toll fi mu nekk nii di wax ni jamono ji dañu jug ci politique man bi may wax suma candidature di wax sama projet communal mat na deux ans parce que loolu laa gëmul ndax ku gis maire yi xam ni seen i mandat jeex na man xaaruma bañ jàpp datu élection manaan man candidat laa déedéet xaaruma ba ay coalition nguróog soow ak leneen ak leneen di am ma naan man candidat la damay wax rek ñu dellu tuuti ci suma page Facebook dama ko doon wax ak lu mënti xew bu doon ba 2035 ñun maintenir nañ suñu candidature ndax li ñu yéene Thiès Nord dañ ko gëm damay bëgg way bi boo leen ne Cheikh Ndoye ñëw na da ngeen teg doomu aram jum ñëw na xam nga lu tax ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wax fi ngay toog yaa aram amatul lu muy prouver ci politique mais nag politique delloowu ko njukkal te politique daf ko war a delloo njukkal ñun dañu bokk ci njabootam mu yàgg ñu orienté yàgg ñu teg ci yoon su ma ñëwee ba fii dinaa nuyu sëriñ Fallou Ndiaye bu Paris Ndiaye ndax li may wax man ak mag ñi man ak kilifa diine yi bëgg ndomba tànk boolewuma ak ñoom Serigne Fallou Ndiaye keroog bi may ngénte suma taaw bàyyi ma dikke bajaan boole ma ak moom ci ndem si yàlla sa Momadou Dieng yàlla na yàlla yokk leeram te mission am la fi mu nekk nii keroog laa fasante woon kóllëre ak léegi ak Serigne Fallou njaay ba léegi kon su ma ñëwee ba fii jaadu na ma ñëw nuyu ko waaye kuy dugg si Kawsara am sëriñ Fallou Ndiaye sa càmmoñ am yaa aram jum sa ndeyjoor franchement da nga war a xuus moo tax ma xuus dugg Kawsara téye Kawsara te ku fi dugg di nga génnaat loolu moom leer na moom moo tax damay sant ndax lu ñuy dem rek yàlla dañu ko jox ay personnes de valeur ay nit de valeur may leeral ndax politicien li muy jaxase ci ay population dafa bari dañuy gis politiciens politicien dugg ak ay oto di génn ñu ne bana fa ay millions Kawsara gi de maa mën a seere ne bàyyiwuma fi dara joxuma leen dara loolu dama koy tenir nit yi xam ko ne ñii dama ànd ak ñoom àndu nawle dama ànd ak àndu gor ndax lan li ñu am projet communal la dañoo bëgg a suqali suñu commune kon bu yàlla doxee ba ma tàbbi ci loxo yi madame Thiam mu jàppee ma comme frère ci orientation ci lépp kon damay wax ñun nañu ànd suñu àndu nawle bi ndax ñi nekk fii bu leen xool tey ci réseaux sociaux yi nii ñu taxawee jàpp ni Cheikh Ndoye jox na leen dara déedéet Cheikh Ndoye moo deseel ñii

la marche pour la mairie c'est maintenant à partir du 15 que beaucoup beaucoup ci yéen na dem inscrire ci ici. liste inscrire nañ ko dem inscrire yi addu kalpe bi da doon dañ naan addu kalpe li ko sa kalpe jaral ba mu ñëw du ko jël sa kalpe na la jaral lu ko ëpp jël mairie Thiès Nord jox ko population yi nañu jaral lu ëpp li fiy xew bu ñu xaste xuloo ba ci tey suma rakk ji ànd ak euh, ñëw ma fekk ko fi muy Maxtaar jàppe ma ko sécurité frère laa ko jàppe rakk laa ko jàppe leen rek laa lay ñaan bul musa bëre ak cere càq ndax sama rakk la mook suma rakk ju ma bokkal ndey ak bàyyi ñooy ànd te musuma du ma bëgg suma ñaari rakk di jàkkaarloo waaye bu dul cere càq keneen ci kanam ay promesse allah salle bi nekk rond ngent abonel naa ko fa six mois entraînement dinaa def ñun dañuy def ñu avancer suñu yaay suñu yaay ji fi ñëw am juróom-ñaar fukki at ñuy ñaanaat yàlla fekkaat aw fanam politique boo ko dee def te amoo vision bàyyil nous allons dañoo initier le contexte dox mbokk le dañuy de la sol la la laal est dans le plastique campagne le plastique parce que nous bëgg les coins et les recoins de Thiès Nord Nous coins et les recoins de Thiès Nord te xamoo sax dal dama naan Thiès Nord ku ko bëgg di nga maîtriser kër may Diakhaté maîtriser kër Modou Ndiaye maîtriser Medina Fall maîtriser Kawsara maîtriser Taaxi Kaw kër Seyib Jaxaaw kër Maam Alaaji Poñeen Caali Petit Caali Coona et les villages rattachés jusqu'à l'école polytechnique mënoo xam loolu nga ne da laaj ba baatu Thiès yaa yabaate Thiès Nord du ay jaaxaan te foofu dañuy alerter tey ñi nga xam ni dañu commencé toog ndakaaru ci bureau yu sedd yi bureau yu climatisé yi ne ñoom ñoo bëgg a lijjanti tey problème mu Kawsara Fall mën ngaa lijjanti problème kaw Kawsara Fall te xamoo sax dépôt gaz bi fu mu toll il faut ñu arrêté caaxaan yi ñuy def ci biir dox mbokk googu moo tax suñu yaay ji ñu gis ko muy jàmbaar waroon a mën a noppalu ne moom ñàkk dundee la xam di def cereem kooku da a xool matière première ba muy c'est ça avoir de la vision a jël matière première boobu jàppale ko dañuy on a bi fi muy méttee ñu xool nan lañ fay indee saafara suñu rakk ji tey li soxla mooy entraînement bu baax alimentation bu baax link bu ko mëna jappalé jàppale mu am ay combat Dakar kérok Modou Anta ba muy bëre dama ko fekk ba këram bama koy jappalé lima ma wax mooy nangootuma ci këru aduna kuy jël ab mbër bu ñu nee mbër noble la du yéen a koy wax waaw ma ñëw ne kaa ñu ànd ma dem xeexi nawlawu ma la dañuy ànd àndu nawle ku ma nar a duma nga taxaw taman sax nag duma xaar kenn duma duma nag loolu moom duma xaar comprendre nga li ma la wax li ma leen waxoon keroog ci jour combat mooy jot na mbër yi am ay kër jot na mbër yi am terrain jot na mbër yi am ay projet man loolu laa gëm mais man gëw ma bàyyi ba élection jot ma ñëw ci Matar ci Demba kay leen ñu and élection yi bu jeexee bisu élection ngay Demba dem dédé moi je te considère aujourd'hui comme un membre à part entière du projet communal bi ñu am pour Thiès Nord kon nak Kawsara tay message bi madame Thiam lenn kese la ndaw ñi message bi leen kessel à partir du 15 juillet dem leen ngeen inscrire massivement sa carte moy sa ngànnaay une carte égale une carte carte kilifa gi ak carte Moustapha mi ñoo yem ci urne ba ñu xol ki gën ci suñu commune bu vous Cheikh ndoy mo gën ci commune Thiès Nord yalla na yalla jox wa Thiès Nord ñu and liggéey suñu commune man lool Si gëm sama ñaari numéro téléphone yi fasuma ko vous la ma leen doon wax nag coow li lu mu bari bari bari bari dalal leen seen xel seen waa fu ragal nekk ci nit lay seet tey jii engagement bi ma gis ci yéen détermination bi ma gis ci yéen xam leen ni daf ma gën a galvaniser pour ma demaat ci kanam te xam nga kañ leen kañ kañ la ñuy xam ni doom neex na ndeyam au soir du 23 janvier 2022 su boobaa ci la ñuy xam ni doom neex na ndeyam maa ngi leen di gërëm